maa ngi tudd Moustapha Bey dëkk fii jaay fii si marché bi dama wàcc démb di ñibbi 9 euh, jëm kër ga bi may dem bay bëgg a àgg kër gi benn waaye dab ma yor baa de fer moom la ma dóor ma daanu foofu bi ma daanoo xamatuma fan la nekk mu jël sama xaalis dem ak moom te fi ne nii xamaguma fan la nekk nii. non non non moom koy daf ma dox ak ginnaaw moom yëguma ko sax. ko yëgul yëglu ma sax parce que su ma ma yëgluwul ma xam ci fan la jëm sax dinaa mën a xam naka laay def mais man daf ma maa mu ñëw dal sama kaw si jël na sama xaalis yëpp xaalis ma saag ma doon yëpp sama xaalis xaalis jàmbur yëpp jël na ko xaalis bi normalement def den war na mat 4 millions moom sama calculé lépp waaw war na ko mat ak sama ñaari pièces daan ak sama ñaari photo ko sama ñaari kayitu juddu doom ñu ngi si biir waaw dañuy dafa daw kay waaw parce que ba man man maa ngi maa ngi ci biir suuf mënu ma jug waaw maa ngi gis mënu ma woon jug boobu parce que jug naa ñaari dama jugee damaa daan waaw parce que kii bi mu doon nii dafa métti maa ngi nii dem Tiwaawan laa fanaan pour defar ko. bëgg euh, nañ ko ñu dimbali lool ci sécurité gi manqué na fi trop trop trop yàlla xam na ko manqué na fi trop saa bu ñu ñëwee fii dañ ci am problème bu bëree bëree bëri. ñu moo ñëw fi guddi dara dëkk baa ngi ni ñun ko te li ko waral lépp mooy lëndëm démb bi may ñibbi fi fi mu ma dogalee dafa xool xam ne fii nii amul benn lumière foofu la mu fekk te fi fi leer mais bu fa ne foofu la foofu fekk te loolu bu fekkee dafa naa bu demee nii ci ma yaakaar te ñun ci dëkk bi lañ dëkk réew mi ñëpp war nañ ñoo xam parce que li fiy jóge bari na kon nañu dimbali ci mu am làmp dëgg-dëgg lu dëkk bu ne dem war nañ ko am yooyu nañ ko comme ñëpp nañu ci dimbali ñu am ko kom ñëpp parce que waaleykum wa rahmatullah mi ngi tudd Imam Mohamed Diop eh, juddoo fii ci dëkk bi ñuy wax Diogo waaye fi mu nekk dëkk Cité Fadia Dakar Guédiawaye jataay bi li ko waral dañu dëkk ci dëkk bu mag dëkk bu am koom dëkk bu yàlla barkeel mu bari alal lool waaye dëkk bi ñu fi nekk nekk ci insécurité maanaam ñàkk kaaraange goo xam ne foo ko takk passé na ko at bu nekk ay jëye dafa am ay nit di ñëw di fital di jël ay alal di gaañ ay nit di dem ba tey mu dal ci suñu rakk suñu xarit boo xam ne xale bu jàmbaar xale bu nangu liggéey ñu gaal gaañ ko jël alalam yàlla def sutura ba bakkanam rëcc waaye ki def nii mënoon na egg ci jël bakkan. dëgg la. bu metti def nañu ay jéego ci niveau bu kawe. man mii wax ak yow toog naa ak directeur bi nga xam ne moom mooy amee planification bu ASER ba ñu dugal jóge ci benn programme programme bom bi ñu ko ci dugalee am ñu wax ni dinañ ci intervenir dugal ci seen loxo bañ ko defaree ba jox leen lañ leen war a jox bu ñu leen woowee téléphone sax dootuñu jël te loolu defe naa ni ñaaw na trop ñu seppi jogo dëkk yi mu waroon àndal dëkk yëpp ña ngay takk te jogo takkul beneen bi ci des programme bi ñu ko dugal it transformateur bi nga xam ne moom moo attan jogo bi mu amule biñ ko commandé ba mu ñëw ñu ne réception bu rek moo des te réception bi bi mu mujjoo jëkkoo ak ñi ko yor nee nañ ma def nañ ko waaye ñun lëndëm gii ñu toog lëndëm gi ñu nekk ñun mënuñu xalaat réception ak ñàkk réception ñun li ñu xam mooy ku ñu ko indil ñun ne am leer goo xam ne mooy tax ñu dund ci kaaraange mbooroo amuñu beneen brigade bu ñu jege mbooroo sori na trop ku fa nekk balaa nga ñëw fii dañuy rey ñu ñu war rey dem seen yool yal nañ ci yàlla musal am na benn post bu ñuy programme fii mais poste bi fañ ko def sax man rafetlu ma ko man bu ma sañoon dañ koy def ci diggu nit ñi parce que sàkkat jiñ wa kay da cay sës rëkk sécurité nit da koy def ci diggu nit ñi suñuy dóor wala ñu yàq nga ne hey ñu jóg daal di ñëw mais fii li fi nekk kenn mënu ko expliquer maanaam dafa mel ni adduna bi dañoo dem seen yoon ñun ñi des ci ginnaaw ci anam boo xam ne ñun yàlla rek rek rek rek dafa mel ni moom la ñu am. li ñu ci mën a génne mooy réew mi alal ji ñëpp bokk ñuy defaraat dëkk yi di leeral dëkk yi ñu jox na ci suñu wàll te ñun suñu dëkk yàlla génne na fi koom mu bari moo xam ne dugal ni ci keesu Sénégal loo xam ni buñ ci coppati woon tuuti daanañu mën a defar dëkk bi te ñun ay intellectuel lañu ci niveau bu kawe xam nañu lépp waaye nag su fekkee adduna bi léegi. dañuy yokk ñi gën a bari le ñi nga xam ne ñoo néewle te yey te am sañ-sañu ñu jox leen kenn du leen jox daanaka ñoom làmmiñ rek la ñuy dese di ko wax su ko defee yéen ngeen di ko jottali xëy la yàlla bi dana def bis ñëw ñu yërëm nu waaw waaye lu metti la am na ay kilifa yu fi nekk suñu baay bi taxaw euh, xam nañu ko parce que réew su fekkee gox ba bokk na ci dëkk yi nga xam ne milliards yay dugg ca réew ma bokk na ci dëkk yay tax milliards yi dugg fa réew mooma kenn tu ko jogo amul ku ko réeré ci Afrique waxuma Sénégal parce que zircon bi fi nekk ñu koy exploité mais ci Afrique de l'Ouest wala ci àddina bi mais amul fenn fenn jogo mooy troisième niveau mondial loolu la ñu wax li fi ci ay milliards xam nañ ci lu baree bari kon loolu war naa tax ñu war a dimbali waa dëkk bi même su fekkente ni sax dañ leen koy dimbalee rek pour dimbali parce que dañ cee yey dañ cee am àq sous préfet ak préfet bi su préfet bi fa mu dëkk dafa sori trop ma nga dëkk meewaan woo nañ ko ci suba avant ñu ñëw mais li ma la wax rek gis nga dëkk la koy jariñ da coy sës rëkk jogo ndox mi ñuy naan baaxul saa yoo fi ñëwee da ngay jaaxle euh, jigéen ñi da nga leen di yërëm dañu liggéey dañu root ko ci nuyu da nga koy ñewent te dañu am droit te yooyu yëpp dara euh, teguñu ko lu dul bañ noo jox suñu àq te dama yaakaar ne rek président Macky Sall su fekkee ñun dañu bokk ci Sénégal comme ni ci ñi ñëpp bokkee ñuy dund ay tar tartar yu mel nii ñuy rey di dóor di fital xam nga ni xale bi ku ko xool xam ne ñi doon def nii bakkanam tey dafa rëcc mais dañ ko doon rey tey ku sa wayjur doon yeewoo jogo ku sa papa doon yeewoo jogo ku sa soxna doon yeewoo jogo nga yor ci xaalis bi nga xam ne mooy defar dëkk yi yaakaar naa ni danga nga gaaw waaye nag euh, yàlla moom xam naa ni dana ñëw waaw dana ñëw